أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñi nga am di fas yéene ànd yeen ci seen waxtaanu wéttalu koor seen waxtaanu wéttalu koor tey dañ cee fas yéene amal ay leeral ci ay baat yoo xam ne léeg-léeg ñenn ci nit ñi di leen jaawale wala ñu di leen jox maana wala sens bu ñu amewul Euh, baat yooyu mooy baatub annaafila ak baatub qiyaamul layl ak baatub solaatu taraawix ak baatub attahajjud mbokk yi bala ma dugg ci thème bi damay préciser ne baat yi euh, ñett yi rek ñoo ñëw ci alqur'an waaye benn bi duma ne ñëwul ci alqur'an waaye gisuma ko muy naafila ak qiyaam ak tahajjud ndax bu dee naafila ak tahajjud yàlla nena na wa min al layli fa tahajjad bihi naafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda foofu fa tahajjad lamboona tahajjud naafilatan lak lamboona naafila bu dee jàng nañ inna rabbaka ya'lamu annaka taquumu adna min sulusay layl baaye ba jeex ak qumil layla illa qolila donc qiyaam euh, ñëw na ci alqur'an muy qiyaamul layl taraawix daal lañu gisul mbokk yi kon ñu ñëw ci leeral ci baat yi njëkkee ci naafila bi nga xam ne moo ëmb baat yépp baat bu ci nekk nag incha allah buñ ci ñëwee dinañ ñëw ci almaana al lugawi ak almaana al istilaahi muy sens littéraire bi ak sens conventionnel bi euh, baatu naafila lugawiyan li muy tekki mooy azziyaada wala lugatan li muy tekki mooy azziyaada muy ndollent waaye bu ko boroom xam-xamu fiq yi jëfandikoo ci seen jargon li muy tekki mooy jaamu yàlla yi ñëw di dollee ko ci farata yi ibadatun zaida ala al farido jaamu yàlla gune bu weesoo la cay farata lu ca dollee ko waat rek fila naafila lañ koy tudde am na ci julli am ci woor am ci aj màkka am ci azaka ndax julli su weesoo julli juróom suba tisbaar tàkkusaan timis geewe ganeen julli goo julleeti naafila lañ koy tudde woor itam su weesoo ramadan euh, ganeen woor goo woorati li ci ëpp naafila lay doon euh, azaka itam su jàllee azaka ga ngay génne mu nekk lu war saraxe naafila lay doon waqfu naafila lay doon ak yeneen ak yeneen kon azaka naafila am na ci azaka naafila am na ci naafila mooy saraxeeg yu mel noonu aj màkk itam su weesoo ajug farata umra naafila la ca euh, kon am na ñoo xam ne sax gën nañoo yaatal naafila ndax dañuy wax ne même muamalaat yi sax su weesoo la farata lu ca teguwaat naafila la am na ñu waxe noonu kon gisoo naafila ni mu yaatoo nga xam ne ajuwul rekk ci julli kase kase waaye ndeke ci ponki islaam yi ñuy jëfe yépp naafila mën na cee mën na cee am euh, waaye nag tey julli moo ñu tax a jóg kon ñu gën a focaliser wu ci julli kon bu dee ci julli daal su weesoo julli juróom yi ganeen julli gu ñëwati naafila la lu mel ne ki ràkkay yoor yoor jullig la taxiyatul masjid muy ràkk yooyu ñuy nuyoo jàkka naafile la ñaar ràkk yi ngay def ginnaaw boo jàppee naafile la qiyaamul layli naafile la jullig aajo muy sulaatul xaaja naafile la en cas daal naafile yi bari na lool naafile nag mbokk yi yàlla moo ko santaane ci xadiisul qudsi bii di ñëw buxaari yi soloo ko ñu jële ko ci abi hurayra yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna allaha taala qaal man aada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb wa ma taqarraba ilaya cabdi bishayin axabba ilaya mimma aftaradtu calayhi wa maa yazaalu cabdi yataqarrabu ilayya binnawaafili xatta uxibbah fa ida axbabtuhu kuntu samcahu alladi yasmacu bih wa basarahu alladi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wala in sa'altani la uctiyannah wala in istacaadanii la uciidanna wa ma taraddadtu can shayin ana faaciluhu taraddudi can nafsi lmumini yakrahu lmawta wa ana akrahu musaa'atah kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla subhaanahu wa taala nee na fonkal leen ma samay nit ndax képp ku noonoog samay nit rek samay wàlli yu rek yow day déclaré naa la geer nee na fonk leen di jëf ay jëf yoo xam ne daleen leen di jegeñeel ak man kon jaam ñi nañuy jëf ay jëf yu leen di jegeel yàlla te yàlla nee na jëf yi jaam biy jëf ngir mu di ko jegeel borom bi benn gënu ci efikaas defal yàlla li mu farataal kon moyen de transport véhicule yi ñuy utiliser pour mu ñuy transporter jëme ñu ca yàlla di ñu may proximité ak yàlla nee na moyen de transport bi ci gën a rapide bi ci gën a efficace mooy defal yàlla li mu farataal jullik farata wooruk farata aj màkka ci bu charte yi dajee azaka ci bu charte yi dajee nee su jàllee farata yi nag nee na am na ay naafila waaw nee na am na ay naafila nee na naafila yooyu itam yu mat di góor-góorlu la ndax day tax moyen de transport bi gën a gaaw rek day yokk vitesse bi ay vitesse la waaw nee na nit ki suy def ay naafila te lim ci jublu mooy naafila yi di ko rapprocher ak yàlla di ko jegeele ak yàlla nee na dana dem ba farlu ci naafila ba yàlla bëgg ko te bëgg buur li muy neex neex buur bëgg laa ko dàq te yàlla nee na su ma la bëggee nag euh, sa lu bari day nuroog sama lool dangay ngay nurooleeg man lu bari ndax nee na danga ci dem ba man maay doon sa nopp yi ngay déggee nekk sa bët yi ngay gise nekk sa loxo yi ngay làmbe ak di ci yëkkatee ka tege nekk sa tànk yi ngay doxe kon loola degré de proximité boobu nga xam ne sa lépp lépp yàlla lay doon loo sumb rek yàlla fekk si la ca loola ndeke euh, li koy maye mooy sonne ci farata yi ginnaaw bu farata yi jàlle itam ngay góorgóorlu ci naafila yi loolu da koy maye waaw bu ko defee nag dooyam ci sax yàlla dila la jàppale ci say gis ak say dégg say dox ak say yëkkateeg say teg waaye danga dem ba yàlla may la ijaaba ba loo ñaanati yàlla rek yàlla may la ko léeg nga gis ci benn koñ am ñu naan ñun de dañu bëgg a gis président de la république wala premier ministre wala kenn kenn ci autorité yi ñu ne ah loolu de diw ci gaaw diw de bu la ñaanalee audience léegi tey ñu may la kon ndeke fonk naafile dina dem ba nga xam ne dangay am proximité ci yàlla boo xam ne da ngay bénéficier wu amuuru yàlla maanaam yàlla da lay bëgg mbëggeel goo xam ne loo ko ñaanati ci li nga bëgg mu may la ko